géré leen ko gën a mag dañ leen di jàpp géré leen ko géré mais ni nga bëgg a doxale la dama dama ragal dama jëm ci dama tiit moo tax nga calme rek non aw ma fii fii fii seen koñ ak suma bakkanu njaboot yàlla ak suma bakkanu doom lii rek moo newoon si oto bi lii lii rek moo newoon si oto bi te man dañ ma ko jox dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko jox waaw kilim baax baax ku la ko joxoon ah? ku la ko ah? joxoon kalu bi moom dafa voyage sax wallaay dafa voyage man dafa ko joxoon bu yëngatu sinon affaire yi seere wuy le ma grand grand yow li ci ah, ko gérer. nañ bu ñu lañ koy gérer. bàyyi bu ñu eggee fële. brigade. waaw non foofu day doy waar. Ah, foofu day doy waar. non bàyyi fii fii mbedd bii nii. ah non wax leen ma doxalee mënu muy demee rek ma gérer ko léegi. non bàyyi bu ma capitaine grand. ni nga ko mais mën nañ ko gérer. waaw gérer leen ko soit nan lañ koy gérer. waaw wax ba pare. ak sama bakkanu doom. wala ak sama bakkanu doom. bul siiwa sa wuy ma lii rek lii rek laa yor lii rek laa yor ma ko man dañ ma ko jaayoon man ma ko jaayoon lii rek laa sa bopp de lii rek laa yor. yaa ngi siiwa sa bopp de billaahi. wuy ah, ma wuy ma ay ak sama traay bàmmeel amul amatu ma grand fii essence interdit la. laa ilaaha illallah ay waay man yàqu naa waay ay man yàqu naa waay ah ah. ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay yàqu